entreprise u Sénégal daal nañu wone seen taxawaay ci xeexub accident yi ñoom nag dañoo daal di profiter ci célébration 27e édition du mois africain de la prévention des risques professionnels ngir rekk renforcer seeni capacité objectif bi nag mooy prévenir accident yi daamar walla oto yi nga xam ne bokk ñoom ñoo yóbbu nit ñi bu fekkee ne ni ñu war a mel noonu la ñu war a mel mais ki nga xam ne aussi moom la ñu jël pour mu dawal daamar yooyu ndax Euh, mel na li mu war a mel ndax am na formation donc ci taxawaay boobu la infirmier d'entreprise yi taxaw. ngir assurer kaaraange liggéeykatam entreprise bu nekk dafa war a am service médical li ni mel tax caisse de sécurité sociale daal na taxaw temb ngir jàppale këru liggéeykaay yi. si lañu dëkk moom laa la wax léegi ñun saa yu ñu xëyee ñu ngi ci entreprise yi entreprise yi am nañu service am na ñu amul am na lu lu lu texte yi tënk. am na entre nu mu war a toll ci ci natt booy nit ñi fay liggéeyee pour nga wax service bi naka la war a bindoo. mais ñu ngi koy saytu. yii les paramédicaux yenn saay dañuy faral di am ay jafe-jafe rawatina si wàllu formation bi mu nekk ab problème bi nga xamante ne direction générale du travail fas yéene na ko résoudre. par rapport à li ñeel nag perspectives yi ngeen di wax direction générale du travail dina amal ay activités yoo xamante ne yi dafay ñeel wàllu formation waaye itam dina leen mën a aar fexe ba ngeen nekk ci ay conditions yu normales. dans les meilleures conditions. accident routier yi dañuy faral di jural ay jafe-jafe entreprise yi loolu waral ren gi acteuru secteur privé ak public yi dañoo daal di lëkkaloo ngir xeex li ni mel